بسا خبل مبارزي وعني خلبسا دهاني الرحيم عند داومي له بما أغنعني تساومي يسر للمنى لدى لبرولي من خاد لي ما خاب عن كل lii xaada ahlal badri ninu suuda an sasa alwaasiya wal asuuda yaqoodu lii aysu akuna lahu absira la ilaha illa allah yaqoodu lii aysu akuna lahu tafsira la ilaha illa allah ساق لخير الله فيما ينبا ما ساء قلبي وأهل الجنبا لله قد وصلت عند قلوى وسانني عما يجور البلوى كتابتي قبل لدى البور كفت حياتي هي للمطور علمني العليم عند ساخرات بما يساء وكفاني الكافرات ناجيت بيا نسير يا ولي فيتني إبليس عند جولي من داري تدا بمبك باري بإسن خالق البرايا الباري دقلوا المواخ لا ورا الماغل ga nga xam ni Seex Bamba reel demam ga addi Sëriñ Tuubaa xablu mubarisi waani xalbasa dahaani ya rahimu inda daawumi lahu bima axnaani tasawumi yassara lil muna lada li bërwali an xaadali ma xaaba an kulli wali lii xaada ahlal badri nilu suuda an sasa alwaasiya wal asuuda yaqoodu lii aysu akuuna lahu absiira laa ilaha illa allahu yaqoodu lii aysu akuuna lahu tafsiira laa ilaha illa allahu ساق لخير الله فيما ينبا ما ساء قلبي وأهل الجنبا لله قد وصلت عند قلوى وسانني عما يجور البلوى كتابتي قبل لدى البور كفت حياتي هي للمطور علمني العليم عند ساخرات بما يساء وكفاني الكافرات ناجيت بيا نسير يا ولي أفيتني إبليس عند جولي من داري تدا بمبك باري بإسن خالق البرايا الباري دقلوا ما وخلا لورا المقل nga xam ni Seex Bamba reel demam ga addi Sëriñ Tuubaa xablu mubarisi waani xalbasa dahaani arrahimu inda daawumi lahu bima axnaani tasawumi yassara lilmuna lada li barwali man xaadali ma xaaba an kulli wali lii xaada ahlal badri nilu suuda an sasa alwaasiya wal asuuda yaqoodu lii aysu akuna lahu absira la ilaha illa allahu yaqoodu lii aysu akuna lahu tabsira la ilaha illa allahu ساخ لخير الله فيما ينبا ما ساء قلبي وأهل الجنبا لله قد وصلت عند قلوى وسانني عما يجور البلوى كتابتي قبل لدى البور كفت حياتي هي للمطور علمني العليم عند ساخرات بما يشاء وكفاني الكافرات ناجيت بيا نسير يا ولي فيتني إبليس عند جولي من داري تدا بمبك باري بإسن خالق البرايا الباري دقلوا المواخ لا ورا المقل nga xam ni Seex Bamba reel demam ga addi Sëriñ Tuubaa xablu mubarisi waani xalbasa daani arrahimu inda daa nag sant ngërëm rek delloo leen ko soxna moom itam waaye nag na xam ni sëñ Massamba Diop Samb ku ko lebal mu koy sëñ Tuubaa daa mën a fay waaye sëñ Massamba sëñ Tuubaa moo ko maa jox nga fay ba defal soxna moomu nag noo ngi koy ñaanal yal na yàlla yàggal ak taxawaayam ay jëfam rafet na lool ciy dëkkandoo fu mu bëgg a yëg yal na ko fa yàlla yëggale ci barke Seexul Xadim ñu eh, ko rafetlu lool di wax ni lu ñu yàgg teg suñu bët la li ñu am solo lool wax dëgg yàlla Sénégal ñëpp ñu ngi koy seedeel lu baax li nga xam ne mu ngi koy def si réew mi di ko def ci mën naa ni bépp réew sax wax dëgg yàlla ndax doon na nit koo xam ne nii ku waa koñ bi jox cër ndax gis nañ taxawaay bi mu taxaw waa koñ bi waxuma la dara waaye gone yi rek am na yëg-yëg goo xam ni heure bu ñëwee gone yi daw ak te bu doon kane la mën na bu ñëwee mu wax garde ñu mu dàq leen waaye du ko def bu ñëwee mu kaf ak ñoom yëkkati lam yor jox leen ñu daw loolu bu doon kanee la bu ñëwee gardien bi lay wax mu dàq ko mu dem te loolu mën nañ ni da koo doon rek ci waajuramu góor di ko sant bu baax da koy wax jërul moom muy wax muy ñaan mën na jël kurusam rek di wax amin te xam ni àdduna koy ñaanal xablu mubarisi wa anni xalbasa dahaani arrahimu inda daawumi lahu bima axnaani tasawumi yassara lil muna lada li bërwali man xaadali ma xaaba an kulli أراد أهل البدر نصودا أن سسع الواسي والعسودا يقود لي عيس أكون له أبصير لا إله إلا الله يقود لي عيس أكون له تفسير لا إله إلا الله ساخ لخير الله فيما ينبأ ما ساء قلبي وأهل الجنبى لله قد وصلت عند قلوى وسانني عما يجور البلوى كتابتي قبل لدى البور كفت حياتي هي للمطور علمني العليم عند ساخرات لما يساء وكفاني الكافرات ناجيت بيا نسير يا ولي